constitutionnel daal di koy fësal ci journal officiel de la république déclaration patrimoine euh, bu président Bassirou may fay mu mel ne nag ndam la ko waa Pastef jàppee daal di koy jàppee itam ab pression ci ñeneen ñi nga xamante ni nag ñoo war a amal déclaration de patrimoine rawatina nag ñi bàyyee ko woon euh, ci nguur gi génn bu ñu sukkandikoo ci ñoom euh, déclaration njiitalu réew mi ilimaanu jëwriñ ñi ak ñi ëmb gouvernement bu Sénégal loolee day wane rek parti Pastef fi mu nekkoon ba léegi jógu fa maanaam di jub jubal ak jubbanti leneen lu ko mën a firnde moo di njiitalu réew mi ba mu tekkee ndombo tànkam Pastef daal di fësal rapport corps contrôle yi daal di aay itam cumul de fonction bureau politique national bu Pastef di ñaax ak di soññ njiitalu réew mi président de la république Bassirou Diomaye fay ci juróom benn weer yu des ci at bi ñu nekk ñu daal di amal reddition des comptes maanaam dërëm bu nekk fu ñu ko dugaloon ñu daal di koy saytu ña laale ñu daal leen daan ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ñoom njiit yi fi nekkoon daal kopparu Sénégal dañ ko doon pàccoo di ci def lu leen neex leneen li liñ ci war a sof moo di daal di jox ay ndàmpaay ñi nga xamante ne nag ci régime bu Macky Sall dañ doon dund lii di ay répression yu brutale Sénégal dina soppeeku ci anam yu gën. di digle gi nga xamante ni nag bureau politique national bu parti PASTEF ñoo ko xamle boole ci di woo sénégalais rek ba ñu daal di wëy di amal mobilisation citoyenne.